daal di génn cartable am génne 10 millions ni ko jënd ci pas déglu leen caaro yi suñu xëy fa ma dëkkoon avant maa takk soxna léegi tuxu naa ba man na pikin daal ni ana kii bale jàkka ji waa ne ko maa ngi nii mu ne ko man dama bëgg néegu yàlla fu mu toll di set wàññi ma rajo wàññi ma micro bi tuuti néegu yàlla bu ma sañoon fu mu toll day set te seetlu naa heure bu ma duggee ci jàkka ji damay gis ni jàkka ji set na kontaan te googu ma ci kontaan nag dama lay décorer génne 10 millions ni ko jënd ci omo nga ciy raxas sa loxo xanaa imam bee ci des mu ne imam yow nag yaa ngi ci tudd doom yi yaay ñaanal néew yi yaay takk sëy yaay jiite nit ñi yow imam awma sa fay dama lay bàyyeeg yàlla jug nar a dem imam bi ni ko déedéet bu ma bàyyeeg yàlla déedéet ma bàyyeeg yàlla def ma ni nga bu ma bàyyeeg yàlla ma ni nga def nii waaye dama bàyyi di yàlla waaw déglu leen kii moom day defar lu lal ñëw ci menuisier bi ni ko ni ko man may Serigne Diouf defaral ma lal mu defaral ko lal bi pare indil ko ko teg ko ci néegam Serigne bi ni menuisier bi dama lay fay wala dama lay ñaanal nga menuisier bi ne ko loo ciy def rek ba boo nga gaaw ci ndax ci lay paas hmm. ci lay paas li mu bëgg a wax mooy sëriñ bi yow bàyyi woo ñoo bi yàlla donte leen yi yaa ngi ñuy ñaanal waaye itam yaa ngi ñuy ñaagal te loolu sëriñ bu la joxee bu la bu lay jox